حمدي وسكري لمن كل بسارة له رضا دون سوء عند سرسارة لو سنا إوارد واني بلا شخاتي مسخادني من بني دائما انصارا لله كل لادا أبار مغرمات من النوافي أجم من سارا إن الذين إلى سرسار قار قزد سيارتي فرخو دارين أو سارا إن الذين إلى سرسار قار قزد سيارتي فرخو دارين أو سارا jaaraama maam Cheikh Anta yaa gëm Bamba yaa taaru tabe ta gëm yonen ba jaaraama maam Cheikh Anta yaa gëm Bamba yaa taaru tabe ta gëm yonen ba mbarum Serigne Touba maneesu ko daan ma ngay takkay ndoom mbaam ca diiwaan ya fa badiyang ba fa rasulullah yot ko Serigne Touba namul walaay Cheikh wala sant yàlla ak yoneen ba ngir foo taxaw rango nga neeli bamba sabran jamilan mbakke yaa wakirloo yaa woolu rabbul arsi maalawoo ñoo ngi fii tey ci ëttub kër sëriñ As Guédé e, fegook sëriñ Mouhamadul Mamoun moom sëriñ As Guédé sëriñ Mouhamadou Jaxate ne ci sunu wet ñu ànd ak soxna jaara Alsaan Sané nekk ci caméra bi ñu ñëw fii ci màggalu Daaru Salaam tey di ñaar fukki fan ci diggiw tabaski mooy zul qaada dëppoo fanweeri fan ci weer juin ci màggalu Daaru Salaam gi nga xam ne moom lañuy amal magal gi nag sëriñ bi ci boppam mu njëkk a ñaan mu doon texel murid yi ndax moo ne ijaal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqa nirana e, ñu ne fii ci Darou Salaam nag tey di jeexaat kenn ci njabootug maam Cheikh Anta di farisam di Serigne Mouhamadul Mamoun moom lañ tuddee tey sunu reportage yu tey nga xamee ne nii dundam doon dund gu barkeel di ñaan turandom yi nga xamee ne nii ñoo di ay sëtam teew ci suba ba tey ñu ànd kook yéen ñuy waxtaan ci seen maam e, ñuy ñaan sunu borom. barkeb seen maam jooju dott dott ko ci seen kaw ndax it dafa mel ni koo ci dem ci moom da nga fekk xaal jooju ne ci moom ndax li Sëriñ Tuubaa doon wax naan al waladu waladaani waladul qalbi waladul sulbi waladul xalbi qalbi yursul xaala waladul sulbi yursul maala waaye ñoom ñi ku leen gis ci seen melokaan wi di nga xam ne ni ñoom doon nañ seen xaali maam yàlla na seen taxawaay yàgg kon euh, sëñ Mouhamadul Mamoun gis nañ ne bi ñu euh, sunu reportage tey sunu gëstu tey gis nañ sëñ Mouhamadul Mamoun day koo xamee ne nii maanaam fi maam Cheikh Anta tibbe la tibbe ba noppi mu am lu mu tibbe ci maam Cheikh loo xamee ne ni tamit fi ñëpp tibbe ci maam Cheikh Anta dafa faa tibbe loolu nuy mën a indil ci loolu ñu daal ci toftal tamit njabootuk suñ Touba gi nga xam ne ñoo fi doon ay xalifa nu mu jëflanteeg ñoom. aouzu billahi samiil aliim mina seytaani rajiim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi da nga laaj laaj bu am Cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne mooy moo njëkk doon xalifab Serigne Gawane yaa ngi tàmbalee sëñ ñel benn wax ci sëriñ Modou Mamoun dafa tibbe fi mu tibbe fi Serigne Gawane tibbe muy lu solo loo xam ne daana ko faral di wax ci ay waxam daana wax ne sëriñ Gawane dama ko doon ba mu jeex tàkk ba noppi tibbe fa mu tibbe waaw neen dama ko doon ba mu jax takk ba noppi nag tibbee fa mu tibbee loolu loolu loolu loolu loolu loolu doy war la li ma ci mën a dolliwaat mooy màggal gii ñuy màggal ginnaaw yàlla bu taxawee Cheikh Mouhamadul Mamoun la ndax suñ gaawoon benn bis benn at la ko def benn at dong la ko màggal màggalatu ko ci teewul mi teewul mi ngi jamono nag benn at la suñ gaawoon màggal Darou Salaam ay ati at maglatu ko bi bi si xewee nag nee na si jumtuwaam nee na euh, si nga dama woo ne ma Moodu sama yëpp a ngi wut bis ndax doo bis ma ne wut munoo bi nga doon ganale suñu Tuubaa waaw. nee na si gaaw na ma kon su boobaa mën sa ndaw ci bis ba. muy mun ma su boobaa mën may doon sa ndaw ci bis ba nee loolu ma si gaaw wax moom moom waaw moom ma waaw. waaw naa ne ko naa wut bis ba nga gan la woon suñu tubaab def ko muy sama bis neen sëñ gaan dolli ma ci ne ma kon su boobaa man mi maay doon santaw ci bis ba waaw da ko rafaatale loolu Cheikh Mouhamadou jaar na ci ak waajuram maam Cheikh Anta mm-hmm. mel ni jamononte naak suñ Tuuba mm-hmm. kon maam Cheikh Anta la ko way juróom fàgguloon ci diggam ak Serigne Touba loolu la Serigne maam Cheikh Anta it fàggul doomam ji di Serigne Mouhamadul Mamoun ci Serigne Touba. waaw loolu la ko fàggul ndax dafa am bi sama baay ñuy waxtaanee mu ne ma mu ne bàyyam nee ko Serigne Mamoun nee na ko nekk na ma ak Serigne Touba fukki at ak juróom na ñetti nee na na moom waaye mat mat na sëkk moom nee na ko lu sëñ bi lekk maa ko togg waaw. suñu réew neen nekk na ma suñu fukki at ak juróom yoo xam ne lu mu lekk maa ko togg neen lu mu lekk rek maa ko togg néewaana ci ñu toppoon sëriñ bi wax la ci lu lu lu lu mel noonu fukki at juróom nee na lu suñ Tuubaa lekk togg rek nee na nee na maa ko togg ko xamoon la nag bi biñ ko laajee bi laajee suñ biñ laajee suñ mbiru maamu kan mooy suñ Tuubaa lan lan nga jàpp ne moo di bëggam da ko tënk rek ñaar dana daal ñaar daal xam naa ne ak bëggama ñu ne ko ban ak ban mu ne nee xam naa ne jàng alxuraan bëggub suñ Tuubaa la nee na xam naa ne joxew ñam yi bëgg bëggub suñ Tuubaa la waaw ñaar yi daal suñ mbiru maamu a seppi ci bëggam moom waaw na laaj na ko ne ko mu gënoon a bëgg comme yow mi ko yow ko jege mu ne moom xam naa ak bëggama jàng alxuraan ak bëggama joxew ñam it bëggam la ñaari mën naa ko mën naa ko séddee. léeg da ngay dégg sax nit ñi sax li nett li bi gën a siiw mooy amul bakkaar lañ maanaam lañ ci lañ ci gën a xam. Ah, Cheikh Mahmoud Mamoun ah, ah, kan ma doon tàngal ataaya ji suñ tubaab ne ko Mahmoud Mamoun néew fi way moo gën a siiw waaye jëmmi Cheikh Mouhamadul Mamoun ji maanaam mi ngi ko jëlee mi ko ko jëlee Mauritanie la ko jëlee. Nouakchott Nouakchott la ko ci ca Badiya ba. ndax dañuy wax ne booba eh, muud yi fa daje bëri na. ñu koy wax muud Cheikh muy maam Cheikh waaye foofu sax bala ma fee dem tuuti dafa am tuuti lu ma la ciy leeral dafa euh, maanaam Sëriñ kenn xamul lu mu doon dafa am ku ñuy wax Sëriñ Góora Baaxum war nga koo dégg mooy wajur Sëriñ Mor Faasa Baaxum mooy waral ñu naan borom baax ñu bëri ñu bëri dañu jàpp ne Sëriñ Mor Faasa la dañu jàpp ne moo naan moo naan baax waaye ca baayam la muy Sëriñ Góora Baaxum waaw Sëriñ Góora Baaxum nee na bi Sëriñ Tuubaa nekkee gànnaar ne Sëriñ Gaawaan daf maa woo ma ñëw mu dama bëgg nga yóbbu ko gànnaar Sëriñ Tuubaa nee na bi ñuy bàyyi ko fii di dem gànnaar nee na dañuy dox Maxime Bourmaoun siñ góor nee na bi ma xalaatee bi ma xalaatee euh, sama bi ma xalaatee sama bi yóbbal nee na xool naa xool xawm lu ma lu nee lu ma lu ma war a def ab yóbbal nee na samam xel dem ci euh, këyit gu weex moom suñu góor baaxum mm. nee na mu nee na ma yóbbaale ko nee na bi tàmbalee fii ci senegal ba gànnaar ne dañ ko dox ak si mburu maamun hmm. suñ góor yi nett nee na bi mu egsee nee na si mburu woon tànki daa ndax ndox bu metti hmm. nee bi mu egsee mu nuyu suñ Tuubaa ne ko suñ gaano ma yun noonu suñu mburu maamun laa doon andi hmm. ba jàmmate ba noppi nag ni daal di génne gi weex jox ko ne ko këyit gi maanaam sama addiya ne suñ Tuubaa ne ma ñetti fan ak nii ma soxla këyit mënu ma ko am neen ah. neen loolu suñ góor baaxu neen neen loolu ma suñ Tuubaa wax neen ma ñetti fan ak nii ma soxla këyit mënu ma ko am ma nag bépp soxla ba mu ta faj dootu dugg sam nopp moo waral lu soxla rëy day naan léppay baax ndax ka doon faj ka doon faj soxla ma faj ko ca gànnaar ba noppi dé dé dé nga ko baax moo tax lu soxla rëy du bind du non non waaw ijaaba suñu wax suñu wax la moo ne ko bépp soxla ba mu ta faj bu ne du dugg sam nopp moo tax lu soxla rëy rëy rek buñ ko dugg sam nopp xam na ne faju na ko faj moom faj na ko ca gànnaar ba moo tax naan léppay baax loolu mu indi baatu baatu sëñ sëñ góor sëñ sëñ góor baaxum lépp baax sama bàyyi na ne lii ne lii waral waaye si mbir moom nee na bi mu nekkee gànnaar mut seex lañ ko doon wooye nee na comme mag ñi bu naan seere suñ Tuuba maanaam maanaam euh, ñii di wàllu cere bari ñii defar ay seel lenn lu nekk ñu di ko yóbbaale nag am dafa fa am magasin waaye nag daaw ko jox dong yi tërbiyew naar yi la ko daan jox ñenn ñi koy seet si si mbir moom nag moom lañ dénkoon euh, teew bi magasin ba wax nañ danaan danaan xiif bay lox waaye du ko du ñemee ubbi du ñemee ubbi magasin bi loolu indi turu Mourou Mamoun mooy maanaam ku ñu wóolu ki oh. nga xam ne moom Mouhamadou rek Mouhamadou Cheikh rek lañ ko daan lañ ko daan wax. waaw bi mu demee gànnaar la lañ la ci dolli Mamoun ji. garaatu Mamoun daal mu ngi ko takkee gànnaar. waaw gànnaar la ko takkee ndax moo daan garde magasin waaye day xiif bay lox wante du ñemee la du ñemee du ñemee laal maanaam li ci li ci li ci. li ci li ci li ci biir magasin bi moo andi turu Mouhamadou Mamoun bi. fi ñu jaxale kàddu gi mooy xikma bu am solo boo xam ne sëriñ As daf ma a nettali si Mburu Mamoun muy dox njaareem nee na ba yàgg moo na Sëriñ Mburu Mamoun nee na Sëriñ Mburu ko alaaji mu ne ko ko léeg-léeg dox ba gis léeg-léeg nga gis maanaam ciinil xaalis yu fees nga ciy jaar ci doo ko gis daanam alaaji boo gisoon nooy def mu ne ko ah mu ne mu ne ko dama koy la ànd ak ma ànd Sëriñ wax loolu nee na Sëriñ Mburu Mamoun ne ma mm. daanaa nekk ak Sëriñ Tuubaa ba guddi jot nee na addiya yi ñu fi indi maanaam xaalisu gal bi dañ koy jël ci ay cin ba mu fees del nee na guddee jot suñu tubaab yeema jël cin fees del ak xaalis yan ma ko jox ma peel topp ci sama ginnaaw nee na dañu àll bi nee na suñu tubaab na ma gasal nee na nee na suñu mu baaw nettali la suñu mu ma gasee ba sonn nee na suñu tubaab mu jël peel bi ma ci gas bi waaw ñu ñaar kot suñu borom mu nett nee na bu ma gasee ba sonn nee na suñu wàcc mu jël peel bi aw ma ci gas bi nee na bu ñu gasee ba mu xóot nee na suñu tubaab kaanam lay takk ci cin yi ne ma mur mur jàpp ne ma jàpp nee na mënu ma yoral ñu yor nee na ñu yor ba suuf mu rocc kaala bi dama suulal ñu dellu suñ boobu nee na du benn du ñaar du ñett kon kooko taxawoon na ak ak ak sëriñ bi. moo tax ci mu mujjam daana wax ne lu yittee rëy rëy eh, maanaam du ma ci weesu du ma ci weesu sama sama ñetti péricours yi rek. nee na lu yittee rëy rëy ak lu mu lu mu doy waar doy waar nee du ci weesu ñetti péricours nee na tay na ci sikar ba ba ba ba tur kurus gi di di wëlbatikuwaat nee na ñetti per la ci jàpp rek. kon kooka eh, amoon na ab cër ci ci euh, ci Serigne waaye li cër bi rëy rëy rëy euh, li ci Serigne Gaawaan amoon kenn ku nekk da ngay mel ne sëb cër day day leneen maanaam ci diggante sëriñ bi ak ak ak ak ak ak Serigne Touba fi mu ne ci Serigne Touba ci mujjam àggoon na ci ak Serigne Gaawaan Serigne Gaawaan fu mu fekk Serigne Touba bu dee bu jant soxee bu ko neexul du fanaan day wëlbati laa ko fas yéene ko fi doo fanaan tey waaw Serigne Gaawaan àggoon foog Serigne Touba mënoon mënoon na ko ci boppam ba fu mu ko fekk tey maanaam bu bu ko neexee day wëltu laa laa bu yi ne ko ne ko fii fii moom fii moom fii moom ne ko ko mu bàyyi ko mu bàyyi ko ndigal ne ko foo jublu rek ñu aw fa yow loolu maam Cheikh amoon na ko ci Serigne Touba nga xam ne kon liggéey la boo xam ne euh, lu am solo la ndax euh, sëñ Mourou Mamoun moom boo ci doon wax daan nga mën nga cee wax ba ma ci binub téere mu mel ni am na ay jagle yoo xam ne tamit mhm. kenn fekk ko ci mhm. ndax euh, mu mel ni euh, moo indi maam Cheikh Anta fii ci dëkk bi mhm. moo njëkk a def màggal gii gannaaw maam Cheikh Anta waaye tamit addiye ji nga xam ne nii moom la ñuy jël nga xam ne ñëpp ki yéemu muy addiye million mu jël almet teg ca loolu it moo ko njëkk a def waa xam nga bi muy indi siñ bi muy indi bi muy indi siñ gaawaan fii boobu siñ gaawaan a ngi gaawaan yàgg fa lool ay at ñibbisiwul si si mu ñëw na ko dama bëgg nga tuxu si Daaru Salaam siñ gaawaan nag ku déggoon la ne ko mën na maa ñëw de waaye nag ci kaw condition mu ne ko yan condition ne ko da fexe ba defaral ma taax mu të aw tàngoor loolu suñ gaaw na wax fexe ba defaral ma taax mu të aw tàngoor mu ne ko mën naa ko fekk booba ñuy ñuy ñuy defar jumaay Tuubaa ji suuf si ñoo tolloo même at. entrepreneur bi ko doon bi ko doon tabax si mu doon waxaale moom ci bâtiment bii mu dëkk tey bu suñu gaawoon dëkkoon tey ci fukki junni ak ñaar ca jamono yooyu ñu war ko fay ñu war ko fay ci ñetti at. payable bi ay maratoire ñu ko def ba ñetti at ni mat ci lañ ko dafay ñu jubóo ci kàddu googu bi demee ba ci biir ñu yokk ci fuur muy junni muy fukki junni ak fuur muy ñett fuur baa ngi ci daara mi ngi ci kër gu mag gi ak citerne bi mu fukki junni ak ñett waaye yàlla def ci sutura laataa at média sëñ Mourou Mamoune fay na fay na entrepreneur ba fukki junni ñett yi ñu ko yi ñu waxaloon wax nañ biñ koy sànci dañoo yàkkamti ba sax def ñu ci bunt dañ cee dañ cee takk ay rideau rek dañ ciy takk ay rideau ngir bëgg. ngir bëgg ngir bëgg ngir bëgg ngir bëgg mu mu ñëw. nga nga xool foofu maanaam euh, liggéey boobu suñ suñ Mourou Mamoune liggéey liggéey si liggéey moom suñ gaawoon muy liggéey ba mu solo. bi bi bi mu wàccee mu def ci maanaam lu yéeme moom suñu mbuur ak suñu gaawan ndax suñu mbuur facturé ku na xam ne mooy jabaatum suñu gaawan lengee ca ñi ko xam ne ñëpp nee ñu wàllu yu kamal loon ca wax na ne suñu gaawan ko bës di ko ak di ko tàngaloo sat gi guddi gi fajar gi waaw suñu mbuur facturé ñëpp wax nañu mm-hmm. ko bësloo guddi gi waaw déedéet moo tureen du la waaw tureen du la suñu gaawan daana ko bësloo guddi gi ak fajar gi mu di ko yeeg mu tàngal sat la gi ngir mën cee jàpp ci bi wàccee moo ko moo ko taxaw. Oh. wax nañ bi mu wàccee mbooloo mi fees dell dañu si mu woon dana mu fàttali dama ci kanam dama taxaw te wax nañ ne daa daan na ko bës guddi ba guddi gi xaaj ba suñu gaawoon jàppante ki kii fajar gi bi suñu gaawoon yeewoo da koy yee fajar teel ne ko demal tàngal set la gi ci lay jàpp ci ñëpp nañ wàllu ko mal loolu kon léegi ko bésloo kooku moom kër xawlu kër xawlu kooku kooku lu lu lu yéeme la. ci addi million ji nga wax maanaam euh, suñu mbaam ku déggoon la. ca dafa am loo liggéey yoonu mu dafa am loo xam ay dafa am xam ne maanaam dafa am loo xam ne ay la. keno yi dafa dafa ñu téye néeg bi. sëriñ bi bi muy def daxaw bi ay bokkam a ci jàpp. ndimbalu yàlla fekk si ko ci lépp sotti. maanaam maanaam sol maanaam dama comme ni la ngir bëgg li sëriñ bi l'islam bi sëriñ bi taxaw gën a jëm gën a taxaw loolu foofu la mag ñi doon foofu la foofu la mag ña doon foofu foofu la mag ñu nekkoon bi ñu wootee màggal gi màggal Touba gi ci histoire wax ni ne si mur si mur maamul moo ko ñu ko suñ falu ne ko fu di wootee sa bàyyi tax kon wootee ko Touba yomb naa dégg nag ndax nee bi bu suñ fallu wootee moom daa waa waa Darou Salam yëpp na leen fekk li ma Touba yemu ca booba ceeb yombut dana man sama participation da ngay bàyyi rek man su ma ñëwee ci wetu jumaa ji foofu suñu Tuubaa gi nekk tey man fa baas di togg di jox nit ñi ngir sama participation ci màggal nga xam ne nit ñi yëpp ñoo daal nga xam ne añ yomb nit ñi daan dugg ci restaurant yi moo waral ñu daan wax man maa ngi añee ci bâche ya ba fii muy wax nii sax man fii am nay tur dinañ ma woowee borom bâche dinañ ma woowee borom ceeb bi dinañ ma woowee Cheikh Modou Mamoun ñàkk Bakar waaw loolu loolu waaw loolu la ko indi waaw koo gis ñu ne borom baas rek maanaam si mu si mu si mu waaw koo gis ñu ne borom baas si mu si mu la ñuy woy baas yooyu moo taxoon ku ñu borom ceeb it borom ceeb bi ceeb ceeb ku ñu ñàkk bàkkaar yi foofu la day tudd day waay buy waat borom daana daana baas baas yu mag ñëpp di lekk si da ngay gis ñaar ñu dox ba yàgg ñu la sax yow fooy añe ji nga ne man ca baas lay añe ca baas ya waaw loolu nit man ca baas lay añe ji waaw. bi muy indiwaat addiya yooyu nag mooy bi suñ Fallu doogee toog xalifa bi suñ Tuubaa ñëpp ne teg mu ci la takk million am ànd ak waa këram ñëw jox ko addiyam ba noppi jël almet ga teg ca dañoo dañoo déggante woon. waaye suñ Fallu ku déggoon la fi mu ne almet gi ne am sax da waaye histoire bi dañ maanaam am loo xam sax histoire bi dañ maanaam dañ ko ci dañ ko bàyyi maanaam buñ ko nettali bi mu tegee almet gi suñ daa génne dundi daa ne koo xam lu tax mu jox ma almet gi ma jox la dundi bi kenn trouvé te loolu duñ ko nettali Sëriñ Fall daa génn junni daa ne ku xam lu tax mu jox ma almet gi ma teg ma jox la junni bi kenn kenn xamul caxawa mu jël bi def ci poosam daa ne naa ne nee million bii nee na nu ma ko def baax na yoonam néewu ci bu ma ko taal ba mu jeex bi booba dafa am lu mu doon jàngale rek ci diggante nit ki la muy joxe ne ko joxe ngir yàlla waxtu boo ko joxee rek noppi ca lu ñu tudd sëñ bi yàlla taxoon yàlla taxoon foofu damay xikma bu am solo boo xam ne Sëriñ Cerno Juuf Lambay mas na mas na ko nettali nee na Sëriñ Cerno mag la woon yu bëri nee ñëw fekk Sëriñ Tuubaa fatu nee na ma jox ko bëkk néeg bi ne ko ba Sëriñ Cerno ba Sëriñ bi ubbee ne ku ñuy wax Cerno Juuf Sëriñ Aliou Juuf Lambay moo ko fi indi woon bi may génn kees gi dégg na Sëriñ Tuubaa ubbi na nee ma ñëw fexe ba xat-xat la ba buuxante rek ba jege sëñ bi nii nii sëñ nii bëkk néeg bi fekk nee na may buux may buux bëkk néeg bi naan ko wax ko li ma la wax na Sëñ Tuubaa gees ne man lu mu doon mën na ko man la cër juuf suñu Aliou Diouf Lambaye dama fi andoon sama addiya joxoon ko bëkk néeg bi ne kon boo génnee na la ko jox ne Sëñ Tuubaa ma yàlla taxoon nga ni ko fi ma ne ko ma yàlla gis na ko ne waxatu ma ma jóg dem loolu day jar fàttali lu am solo la man fii may wax nii sëñ si di mi sama ma leen lu mbég mbégteem loolu lay sàkku man sama nuyu si daal man daal na bëgg rek ak nu muy bëggee nu muy moom la engagé. xam nga si Mame Cheikh Anta na taalibe bu ñu daan wax bu ñu daan wax baylaay. Mhm. te Sëñ boole woon ak Mame mooy mooy baylaay gay. waaw Sëñ Tuubaa ko boole woon Mame waaye foofu dafa am lu sëriñ doon jàngale. waaw da doon jàngale ne kenn ku nekk kamal booleel rek ci sa buntu ci man rek yamal ci am tax na mooy sa buntu. doole Sëñ Tuubaa doole Sëñ Tuubaa bi Baye bi Sëñ Tuubaa yónnee baylaay gay bi mu yónnee ci baylaay gay dafa yónnee daan ne leen bàyyi dama soxla hmm. ne ne ko naana na ne ko boo demee ne ko naana ji naana naanee siñ gaaw na suñu as nee bi ndaw li ñëwaatee wax ko ba suñ tubaab na suñ ba nga gis ba nga gis xar kanam gi hmm. ngir loolu ko ndaw li wax waaw nee na day rey ba nga gis ba nga ba nga gis xar na mu dugg yónnee ci siñ gaaw ne ko siñ gaaw nag yónnee ci bàyyi laay dama soxla naana keroog nee na bàyyi lu fa ne daana du ko góob def ko ci peñe ne ko naan naa jàng nii léegi nag yow moom yaa xam foog ñu waaye man yëf yaa ngi nii. oh. mag ñi dañoo amoon euh, daray kiñaan wala daray euh, kii. nekkutul ci ñoom dañoo dañoo matum sëg sëriñ bi. himma bi sëñ bi daan wax. waaw bi yonent bi daan wax na ko def ci dong yi. himma boobu dama ne looloo koy firi. ne loolu nekkoon na ci mag ñi ba ci Cheikh Ibrahima mii Cheikh Ibrahima Fall mi ngi dégg fi ñu ko ñàkk ñan la. fi ne bi mu demee Ndar histoire bi gudd na lool bu jar nettali waaye bi mu ñibbisee ko ñàkki ñaan dafa wax ne ah, dañoo nuyu suñ gaaw na ko moo leen suñ tubaab mi nekkoon ndar moom nga ma yabaloon ma jëli leen. allahu akbar loolu loolu moom a a baax. bu def sa ngóoree bopp rek. ba fexe ba gaa yi na ko ki mu dem ndar ba fa xew xew fa ba mu ñibbisi ana mbooloo takk bi mu ñëwee nuyu suñ gaaw na ko mbooloom suñ tubaab mi nekkoon ndar moom nga ma yebaloon ngir ma jëli loolu loolu loolu loolu loolu Cheikh ah. xam nga yooyu day loo xam ne euh, muy histoire yoo xam ne lu wér laa def dama naan diw moo ne ma diw sama bàyyi ne ko waaw waaw te sama bàyyi suñu ko daal xam nga ci loolu suñu as. Ah. ah waaw. ko daan fekk fii ko. moo ko suñu suñu gaanoo lu ma la lu ma la si wax rek si ma ne si na ko nangam rek. da ngay xam ne ñii. suuf su baax la waaw maanaam suuf su baax la kon loolu. fexe ba xàmmi ko xam ne mag ñi liggéey nañ liggéey boo xam ne ñi fi ne di ndaw. mënu mënuñu soo yàq dara ndax beneen dañ ko ba noppi. fi mu ne si mu taxaat yi wax naan yoonu yoonu sëriñ bi ku ko bëgg yàq ko yaa fi yàqoo fi mu ne da ngeen di déggul da ngeen di déggul euh, wax ja sëriñ bi du yàq. Mm-hmm. du alak du la toroxal déedéet yàqu gi mooy dañ lay yabal nga wuyu ji rek ñi fi des ci ci yor liggéey bi. lu mooy bi waaw. non non non la demee. <laughs> waaw waaw déedéet déedéet déedéet doo yàqu ndax xas na bokk ci ndax li biir du lakk du yàqu du lakk. waaw déedéet dañ dañ lay yabal rek nga wuyu ji ñi fi des ci ci doxal. doxal liggéey bi. waaw loolu loolu loolu loolu suñ loolu suñ mu taxaat di jund. Mm. yoon wi day loo xam ne. am na si yoo xam yu bari soo xam ne sax de su ko wax ci ci ci ci ci ci ci ci waaw ci ci ci ci média sëñ Mountakha mi mas dégg naa ko bis mu ne sama wajuru jigéen sëñ gaana ko yoon biir kër bi ba mag moo jox ko sëñ Basiru am na tax yoonam ñu dee keroog daanaka na ko wax na ko ca njëlbéenam sama wajuru jigéen sëñ gaana ba màgg moo jox ko sëñ Basiru bu gudd xam nga benn yoon dinañ ñëw ci dundu moom Cheikh waaye wax ñuy wax ar rijaalu xawla rasul mhm. ñi ko réalisé mhm. bind ko mhm. dañoo xam ne ñii dañoo maanaam ay ay ni koy wax ay ay ay tubaab di wax naan ay immortel lañ te ñooñu dafa mel ni las loola yonent bi woon dafa Sëñ Tuubaa da ko doon mhm. ñaandoon ak moom ay ay ñu fees dell lañ mhm. ay Seydina Omar ay Seydina Aboubacar mhm. Seydina Ousmane ñooñu te loolu boo dee maam Cheikh ñoom seen da nga ciy fekk waaye mu mel ni Sëñ Mouhamadou Mamoun dafa bokk ci dernier cours bi Sëñ Tuubaa yaral boppam te ñooñu it dafa ñi mu mujjee yar da leen a def xaalam ndax booba da ngay gis ne Sëñ Tuubaa yegg na fu yegg waay ñi mu mujjee yar nag nag kon dañuy am sens loolu. Mm-hmm. waaw ñi mujj yor dañuy am dañuy am dañuy am sens boobu ndax mooy am na loo xam ne ci ci misaal li ma la ci wax léegi am na loo xam ne man bis ko wax ci ci télé. waaw am na yu ko yu ko Sëñ Tuubaa daan sant ci maanaam ci ci ci mbirum boppam mën si ko wax ci rajo nga xam ne lii da nga si mbirum daan lii Sëñ Tuubaa ma ko def loolu mm-hmm. ci mbirum boppam. Mm-hmm. moo ne ma nangam ak nangam dama def ko ci ma ko waroon def ci mbirum boppam. loolu muy muy loo xam ne. tamit mel na ni sëñ Mouhamadou Mamoune bu daan defal sëñ Touba. donc mhm. cofeel ga maam Cheikh amoon bu ko raw lay am ci moom buy defal sëñ Touba. waaw ndax ci loolu lañ ko nambutal ndax ci loolu lañ ko nambutal ci loolu lañ ko ci ci loolu la xam waaye fi mu ne li ma ci gën a yéem mooy fi mu ne li mu daan jëfal jëfal jëfal sëriñ bi lépp euh, mag ñi daal fi ñu yeggoon ci ñoom fi ñu yeggoon ci digg seen digg sëriñ bi. Euh, dañoo dafa am dañu ko weesu woon ñoom ndax fi ñu jëfal la sëñ bi ba sëñ bi jóge fi ci téewul fi mu nii barke baa ngi fi lépp a ngi fi ci oto bu mu war suñu suñu mënoon amu amu ko oto bi mu war. Hmm? maa la loolu. dafa am bis ma ànd ak sama baay yàgg na maa ngi yor benn oto 205 yu ndaw yi GTI di dawal. ñu ñëw tolloo Mbacke si ñaas joxoon ma dama gis nga kër ga léegi seen ab étage la mënuma am na jamono yoo xam ne gépp mu fi amul saret daa dem sëñ Mudu Maamun àgg na ci su daan tukki ba ñibbisi day bind leetar fukki fan ak daane bi sàngam dinaa ñibbisi dem nañ ci góor gi abal ma saret bi mu gàtt ma ci gaar ba ca saret la daa du fas de waaw sama bàyyi ma wax loolu nee na kër gële ngi seen góor gu ma fa am saret des mbak gépp ne ma mu Mudu Maamun bu daan ñibbisi bu tukki bu jigéen fu mu Dakar fu ma doon di bind leetar fukki fan ak juróom leetar bi doo ko si ñu lii leetar bi daana sëñ bi ne dina ñëw bér sàngam ñeneen nañ dem ci góor abou saret ba mu gàtt ma ci gaar ba nga xam saret bi ñëw ba ci gaar Mbàkke mu gaar fa xaar sëñ bi suñu doom ci euh, yàqul dara ci batinam batinam nag yàqul dara ci batinam hmm. te joxe at yi million million ci jamono boobu ci yàqul dara ci batinam nag ca ñi mu bokkaloon sëriñ ñi mu bokkaloon sëriñ bi ñu muy doomi sëriñ beeg ñi ay tali bi maanaam maanaam ku ñëpp joxoon ab cër la ku ñëpp bàyyi woon xel la wax nañ Kër Sëriñ Tuubaa gii ci Kër Sëriñ Tuubaa gii ci penku jumaa ji ginnaaw yàlla maanaam ah, ci kàddoom la la la so ci kàddoom la sosoo dañoo natt bàggal mu leen ne leen déet ab dëkk nag borom dëkk dafay dafay am kër ah. ndax it Sëñ Abdou Lahad ku ko ku ko am loo xam ne maanaam diisu ko nekk ci rajo ndax Sëñ Mourou li mu màgg Sëñ Abdou Lahad dafa dafa dafa takku biñ nattee bàggal Sëñ Mourou Mamoune moo leen ba ñëw mooy leen borom ab dëkk borom borom dëkk dafa am kër ñu defaraat ko doo ko génn doo ko génn ki Sëñ Tuubaa googu boobu mooy li ma la fee mu nekk bañ gën a moo doon fa daan fa def bâche fa daan toggee ki Sëñ Tuubaa bañ gën a tëgur foofu foofu la daan def ay bâche am di fa toggee mhm. biñ nattee bàggal te génnewuñ kër gi nag leneen leen ah bu ab dëkkat borom dëkk dafay am kër ñu ne ko nañ génne ko Sëriñ Tuubaa lii moo lii moo simbi moo sabab ñu génne ko ñu génne ko Sëriñ Tuubaa googu kon loolu ak jagleel boppam la ba tey moo tax ma leen ñi bokk nañ Sëriñ Tuubaa ñëpp maanaam kenn ku ci nekk rek amoon nga wàcc waay woo ko joxoon boo xam ne xamoon nga ne kii maanaam am na lu mu doon ci sa baay ba noppi maanaam ba noppi maanaam mat ko sëkk nag mm-hmm. fi mu ne gën a jafee nangu mooy ngërëm ngërëm kenn mënu ko nangu daa déedéet man nga may lu ne mën na si ngërëm ngërëm koo ko xas may koo ko xas jox jox jox na koo ko xas jox mënut mënut mënut waaw waaw moo xam-xam moo xam-xam xam-xam koo ko xas jàngal hmm. mokk ci boppam hmm. ba nga ber ko hmm. mënutoo ko war di di ko di ko di ko ne ko ko ñëwaatal ñëwaatal ñëwaatal ma jël la nga yoroon mën mënatutu nekk moo maanaam moo loolu moo ngërëm am waaw ah, xam sant bu baax ndax mm-hmm. euh, xam nañ xat-xat yi te yaa ngi ci waaye waa taayu dem ziar mm-hmm. waaye teewul xam naa ne sëñ Modou Mamoun moom mm-hmm. kook buy natt géej moom moom loolu noonu loolu mooy li nuy bëgg a def ci sëñ Modou Mamoun xanaa di kàddu yu mujj yi rek doon xanaa di ñaan yeneen di jataay yoo xam ne nii dañ ko danan danan ko danan ko def ngir sëñ Mouhamadoul Mamoun ndax wax dëgg yàlla euh, li ñuy wax ne sëñ Tuubaa la kenn xamul ku mu doon waaw waaw kàddu mujj daal mooy ci fi ma koy tëjee mooy comme li nga waxoon li nga ma waxoon léegi ci ne ma euh, ci nja ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi nu ñu demoon ak ñoom nga xam ne fi ne ñoom dañoo amoon communication bu batin bu yéeme dañoo amoon communication bu batin ñoom seen biir Sëriñ As ne dafa mas bis ma ne ne ma julli ji ajuma Sëriñ As gi da sama bàyyi xam nga moom suñu mbàkk bi suñ lañ ko tuddee hmm. waaw waaw waaw ah, moo tax ñu koy dàkkantele gédde fa la yaroo waaw suñu mbàkk bi suñ ko tuddee hmm. waaw. cee waaw. nee na am bis may julli ji àjjuma bi ma jaati buntu ginnaaw bi bay dugg suñu fàll gis ma yem ci man di ma tooñ naan ma alaaji Gédé demal Gédé xam na ne xam na ne si mbàkk bi ba noppi nee na suñu fàll ñu nuyoo bàggal mënu ma alaaji ma ne ko mënu ma bu àjjuma jotaatee da nga fi dellu si ma dimbali ni ma dimbalee say morom. nee na suñu as nee na loolu ma ma bàyyi ko fa ñibbisi kese fii ci kër gi mag nee maa ngi fekk si biir moom tëdd ci lal bi jaaxal nee nañ ah, ah, Baye Babacar Mbengue ma ñëw nuyoo nee na fayu mu ne ko alaji ma ne ko mbàkki mu ne mu ne ma jul joon nga ma waaw mu ne ma gis nga ma ne ko waaw mu ko toog lu mu la wax xam na ko waaw nee bi mu nuyoo nee daa tëdd rek jaaxal nii ci kaw lal bi nee na man alaji ko mbàkki mu a ma jul joon nga ma ne ko waaw jul joon naa de mu ne ma gis nga sëñ Fall ma ne ko waaw gis naa ko nee na mu ne ñoo ko toog yaakaar lu ma def nii ma def ni ma ne lu mu la wax <laughs> nee na moo wax la ma wax nee na moom wax ma la moo wax ma les <laughs> la ñoom seen biir dañu amoon benn benn communication boo xam ne kenn ku ci nekk sa borom jagleel loolu la sab cër bi la sa borom jox sa morom nangul nga ko ko kenn ku nekk cër bi nga am ci yàlla nangul nangul nga sa morom te jamono nag jamono yi neex na ndax toll na jamono boo xam ne bu ndaje daan am ci yoonu tarix yëpp fii la ñuy daje. ngir mën a ngir mën a ngir mën a ngir mën a rek ngir man a regg. waaw mooy li ma la wax dañuy wax ne jamono toll na foo xam ne su Senghor masaana soxla kilifa diine yëpp ñu war a daje benn place. Darou Salaam dañuy daje dañuy réunion sax dañu naan kat Darou Salaam doo nga fi mën a daje kasi mu moom fi may daje ngir ñu mën a ngir ñu mën a regg bañ moom rek moo mën a dajale mbooloo yëpp jox leen añ añ bu suuf def lépp jar dara du manqué togg leen ceeb moo a su ma san dajee ma san nag fii la ñuy ci kër gu mag gi loolu si mur moom dong moo ko mënoon moo ko mënoon ci maanaam maanaam ci jamono boobu ba fii mu wax ne bu yàggul sax am ñoo xam bu yàggul lañ doog ñoo xam ba lañ jàpp ne sax Daaru Salaam duñ jënd bi waaw mi fii mu wax am ñoo xam ne mooy la ma wax naa la ko ci njëlbéen ko hmm. koo dégg ñoo la borom Cheikh Moudou Mamoun la koo dégg ñu am borom ceeb bi man fi mu am ñoo xam ne du ñu ma woy mukk Cheikh Mamoun ñu am ñoo xam lañ mooy woy ñu ne ma bi ñu ne ma borom baas ñu ne ma ñàkk bakkaar juróomi <laughs> moom day doon si Moudou Mamoun da doon nit koo xam ne moom daal mooy si Moudou Mamoun waaw ñu taw ñu tudd ñu tudd ko suñ Tuubaa joxoon ko ko lépp suñ Tuubaa defal ko lépp yi nag ndax Daaru Salaam mos na gent. Euh, mos gent. mos a gent déedéet mos a gent. foofu dafa am xikma ba mu solo xam nga suñu asgari ku maanaam suñu asgari ku diggoon jamono la. dafa am bis Baye Fall di tabax kër suñu Abdoulaye di kër fii amoon na ay fay gas ñu fay tibb suuf ñu aaye leen. Hmm. sëñ Moussa Mbar mii mos Mourou moo ko nettali moo ko ñëw ñëw moom moo ko moo tax jëf jëf bu baax solo moo ma ko nettali moo nag biñ ñëwee góor gi aaye ñu ñu xool xool dëkk bi ñu ne suñu as gi defi nekk waaye sax duntub duntub xalifa ñu ne ko nañ fa dem waxtaan ko wax ko ba xam lu ci xalaatam suñu soxna ñëw suñu as ne ko daal ñun dañ doon tibb suuf fii suñu ab laaj dafa kër gu ñu defarloo am ku ñu aaye suñu as nañu suñu as daanañu dem leen dem leen bu leen neexee ngeen tibb dëkk bépp daanañu daan nañ ci aada wala fa de ku sama am groupe dëkk ku ne yaa war na moom dëkk ba hmm. <laughs> <laughs> dégg nga wax bi nee na loolu ma suñu as wax daana ci aaday wolof ku sama am groupe dëkk ku ne yaa yaa waroon moom say sëtu moom say sëtu ba mhm. ndax dégg nga yooyu kon dañ leen war comme Cheikh Ibrahima ak goroon fii bu doon ci waa aaday wolof yéen ñi yéen a war a moom Daaru Salaam <laughs> waaw ku déggoon la nag ku déggoon la kon yàlla na yàlla euh, dimbali bëgg nañ lool bëgg nañ ci yéen lool di wax dëgg yàlla nag sama borom dafa leen jàmm jaatu ci barke borom Touba waaw jërëjëf jërë ngeen jef daal jërë ngeen jëf jërë ngeen daal jërë ngeen jëf.